Al-Imam Abdul Wahid ibn Ashir, one of the greatest fuqaha of his time, said in his beautiful book, Al-Murshid Al-Mu'in ala Al-Daruri min Ulum Al-Din. We want to read from this book because many of the Jama'ah is interested, are very interested in fiqh and in fiqh questions. So inshallah, instead of um, going through the book, we I want to go through it, but you know, one line, two line, because the book is uh, has 313 lines of poetry. Mm? And the first uh, uh, chapters talk about Aqidah in a Ahl Kalam way. You know, we don't want to go through that. We just want to start from the fiqh point of it. Mm? And when, he, when it comes to fiqh point of it, he uh, wants to tell us about this hadith of the Holy Prophet وسلم, the hadith of Jibril, in which the Prophet وسلم, talks about Islam, Iman, and Ihsan. And from Islam, Iman, and Ihsan, or from Iman, Islam, and Ihsan, you can have the uh, Aqidah or Tawheed, Fiqh, and Suluk, what some call Suluk, we call Tasawwuf. You know, you have Iman, Islam, Ihsan. Hmm? in this chapter he says faslun wa taacatu aljawaarixi aljamic qawlan wa ficlan huwa alislaamu alrafic qawaacidu alislaami xamsun waajibaat wa hiya shahaadataani shartu albaaqiyaat summa alsalaatu walzakaatu fi alqitaac walsawmu walxajju cala man istataac this is alislam and the second part of the hadith he says it in a poetic uh, you know in lines of poetry uh, limaanu jazmun bil ilahi wal kutub wa rusli wal amlaaki ma baatin qarub wa qadarin kada siraatun miizaan xawlu nabii jannatun wa niira ixsaan wa ama lixsaanu fa qaala man daraa an tacbud allaha ka annaka taraa in lam takun taraahu innahu yaraak wa diinu li thalaat xudaq wa curaak but we're just going to go through the first two lines faslun wa taacatul jawaarix aljamiic qawlan wa ficlan huwa alislaamu rafiic this is a section on the pillars of Islam wa taacatul jawaarixi aljamic qawlan wa ficlan huwa alislaamu alrafic the obedience of Allah uh, the obedience of all the body limbs in speech and in actions is what the sublime Islam is he says that when we talk about Islam we're talking about compliance المقصود بطاعة جميع الجوارح هو الانقياد الانقياد بها إلى إلى إلى إلى إلى فعل المأمور tarkil manhi qawlan kana aw fi'lan Islam means that all our limbs go according to what Allah tabaraka wa ta'ala want us to go oh, when we say we say that which he wants us to say and when we act or do we do that which when he wants us to do or act he calls al-islam rafi' the sublime and high huh? and when we talk about the limbs we're talking about the seven limbs When we talk about the seven limbs, we know al-jawarih sab'a, eh? al-sam', al-basar, eh? al-lisan, al-yadan, al-rijlan, al-farj, wal-batn. Al-sam' is not the ears, it's the eh? Not the ears, but the hair itself. not the eyes, but the The sight. some people have eyes, they don't see the sight. uh, al-lisan, which means the tongue, al-yadan, the two hands, <coughs> or you call it hands or arms? Hands, right? Yes. Hands, huh? Hands. And rijlan, the two feet. Huh? Al-farj, which means the private part, and al-batn, the stomach. So whatever we say or do or put there or get out there has to do according to what Allah Ta'ala wants, subhanahu wa ta'ala. He said that is Islam. Islam itself is compliance. to what Allah or with what Allah Ta'ala wants. Then he said, Qawaidul Islam khamsun wajibat wa hiya shahadatan shartul baqiyat. The pillars of Islam are five necessary acts. And they are number one, the, the shahadatan, uh, the, the two testifications which are a precondition for the rest of all the pillars. Say the first one is a shahada or a shahadatan. And he said the shahada or the shahadatan is or are the, the precondition for the rest of the pillars. You know, you cannot pray without the, the Shahada. You cannot give zakah without the Shahada. You cannot do anything if you do not begin with well, Shahadatan. Shahadatan is Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, they have muqtadayat, muqtadayat shahadati an la ilaha illallah. There are, require, there are requirements. There are four requirements for ashhadu an la ilaha illallah and three requirements for ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So the first requirement of ashhadu an la ilaha illallah is Allah ya'buda illallah. That one does not worship any one but Allah Ta'ala. Number two, al-muqtada thani, the second required act, Allah yad'iyya, Allah yad'uwa illallah wa an la yatakila illa ala Allah. To not invoke, ask, or depend on anything or anyone other than Allah tabaraka wa ta'ala. If I say that I believe in Allah subhanahu wa ta'ala and I worship something else, that means I don't. If I say that, if I say Ashadu an la ilaha illallah, and then whenever I have some need, I go to something or someone else or call upon anyone or anything other than Allah Ta'ala, that means that my Shahada is, is, not, is not right. Huh? wa al muqtada thalith an la yashra'a illa Allah that no one has to legislate for us but Allah Ta'ala <laughs> uh, I mean that's something else but when we are in in in in in a, in a land that is not the land of of Islam that has other things but there are legislations that have to do with ourselves you know we do not uh, follow obey any legislation but that which of Allah subhanahu wa ta'ala And Al-Muqtada Rabi, the fourth requirement is Mahabbatullahi Tabaraka wa Ta'ala wa Mahabbatu Ma Yuhibbuhullah. To love Allah and love anything or anyone that Allah Ta'ala loves. I.e., we, we must love Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam because he's the most beloved. So Allah Subhanahu wa Ta'ala. So these are the four requirements for ashhadu an la ilaha illallah to be right to be correct to be perfect to be accepted by allah tabaraka wa ta'ala number one to worship none but allah ta'ala number two to invoke or rely on any one but allah subhanahu wa ta'ala number three to not accept any legislation but that which of allah subhanahu wa ta'ala number four to love allah and love whatever and whoever allah ta'ala loves and there are three requirements for ashhadu anna muhammadan rasulullah when we say that we bear witness that Muhammad alayhi salatu wasalam is the servant and the messenger of Allah Ta'ala. Number one, we uh, number one requirements an yusaddiqa an yusaddiq an yusaddaqa aw or an yusaddiq al abd Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi kulli ma akhbara bihi. To uh, accept that whatever that the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam has said is truth. Hmm? You don't doubt him because you know that whatever he says it comes from Allah. He does not speak from his from, from, from his desire. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ When you bear witness that whatever he says is true, uh, that, that, that he's a messenger, that means whatever he says should be, must be true. تَصْدِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عن الله. Number two, to obey him, أن يطاع سبحانه, أن يطاع, uh, to obey him عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر. When you bear witness that the Holy Prophet, Prophet is the messenger of Allah, and the messenger of Allah has to be what? Followed as Allah Tabaraka wa Ta'ala says, Man yuti'ir rasulah فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ Whoever obeys Rasulullah has obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ no one, no prophet has ever been sent except for him to be obeyed, you know, for, for, for him to be obeyed. بِإِذْنِ subhanahu wa ta'ala. And number three requirements from Muqtadayat Shahadat Anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa is to worship Allah, uh, to, to not worship Allah Tabaraka wa Ta'ala except by the hadith, by the guidance, by the teachings of the Holy Prophet Sallallahu Meaning whenever we do worship Allah Tabaraka wa Ta'ala, it has to be according to the teachings of the Holy Prophet Sallallahu So to summarize, whatever I said is that muqtada shahadat an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Sallallahu is that we do everything we do solely for Allah And we do everything we do according to the teachings of Rasulullah. This is the muqtada of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 32 24 24